des s'agissant de Valencia qui est blessé. Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah ah si va a tener alguna eh, preocupación especial con Ener Valencia, con el delantero ecuatoriano que está teniendo un muy de Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. Bah, bah, J'espère qu'il ne, qu ne, sera pas là. <laughs> J'en suis pas sûr. Je pense qu'il euh, il sera là. C'est un match euh, très important où ils savent qu'en point, ils peuvent se qualifier. Et la mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur, son, sur sa posture, euh, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de, de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valenciennes. à nous de nous concentrer nous sur notre équipe et surtout de ce que nous devons faire et, pour remporter cette, victoire-là. Yes, euh, Marfal, journaliste à U Sport. Euh, depuis hier, on en parle. Mardi va marquer les deux années de disparition de Babou Bojop. Et hier, il a juste même en parlé pour dire que les joueurs doivent jouer pour lui, pour lui rendre hommage. Est-ce que vous en avez parlé en vestiaire Si oui, qu'est-ce que vous avez dit je pense que c'est surtout euh, la motivation. La pression, il faut le mettre de, de, de, côté et surtout rester, serein. Concernant Bouba, vous, connaissez euh, les rapports qu'on a. C'était un, frère d'armes. On a vécu par moments exceptionnels. À moment donné, on a, on a vécu plus ensemble avec, euh, avec Bouba que notre, notre, notre propre famille. Que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Oui, bonjour coach, ici Stanislas de pour l'agence France Presse. Deux, deux questions rapides si, vous voulez bien. D'abord, je voulais savoir quelle était l'importance pour vous de, de Bamba Dieng euh, qui, a, qui, a, fait une bonne entrée l'autre jour. Euh, et, rapidement, si vous avez eu des nouvelles euh, de Sadio Mané, s'il communique un petit peu avec le groupe, s'il vous a envoyé quelques messages pour, euh, pour vous encourager. Oui, Sadio est, Sadio est toujours là. Donc, euh, même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi, je suis très occupé, mais chaque fin de match, il envoie des messages. Donc, euh, il, est, il est là, il est là, il est là. Euh, Bamba, oui, comme, euh, comme d'autres qui sont bien rentrés aussi. Je peux citer Iliman, je peux citer des garçons comme Pape Matarsar. Aujourd'hui, euh, c'est ça aussi euh, la qualité de eux. de ce groupe-là, excusez-moi, donc où on a profondeur de banc, où les garçons qui, rentrent apportent, plus, et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile, mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose. Et saluer vraiment la mentalité de, de l'ensemble de mes joueurs. Bonjour, Voilà, vous avez tantôt parlé d'un match <clears throat> avec intensité, engagement et tout. Et on sait que la plupart euh, des joueurs, en tout cas plusieurs joueurs, sont sous le coup d'une menace en cas de carton jaune. Alors comment alliez-vous ça Comment gérez-vous cette situation-là qui pourrait euh, constituer euh, un frein à main pour certains Merci. il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne, mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin et, et ce qu'il doit faire pour, euh, pour l'équipe. Donc euh, je crois que les garçons, même s'ils ont des, euh, des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier. Ce n'est pas oh, de penser comment se fait le prochain tour et penser à leur, à leur carton. Donc euh, je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces, à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et que pour que justement l'aventure puisse continuer. Donc les cartons, on le met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. We have time for two or three questions, please, gentlemen. Please. Eh, Víctor Darwin Rodríguez de Uruguay. Mr. Cissé, placer. Eh, quizás le preguntaron, y no entiendo francés, Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais je ne comprends pas le français, donc je suis désolé de répéter une question. Mais d'après votre expérience en tant que joueur et maintenant vous êtes sélectionneur, est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde est une bonne Coupe du Monde Est-ce que c'est la Coupe du Sénégal est-ce que vous allez pouvoir mettre en vitrine ce Sénégal champion Afrique pour que vous puissiez continuer

Aujourd'hui, le Sénégal est, est 18e, bien sûr. Notre, notre souhait, c'est ça. Et c'est toujours le football sénégalais, le football africain le plus haut possible. Et oui, euh, le match de demain, ça doit nous permettre aussi de passer un cap, de passer aussi, euh, de, que l'équipe continue à, à, à, progresser. Tout à fait, c'est notre option, c'est notre ambition et c'est ce que nous voulons. Faire progresser toujours notre, notre pays, faire progresser notre football et montrer que nous sommes capables aussi d'exister sur la scène internationale, sur la scène continentale. Bonjour coach, Babacar Ndaoufay du groupe Imedia au Sénégal. Alors, euh, le fait que votre équipe euh, soit dans l'obligation de gagner, est-ce que cela peut causer une certaine euh, tension nerveuse et comment faudra-t-il gérer un peu euh, tout cela pour que vos joueurs ne se précipitent pas Euh, vers, euh, dans, dans, dans, dans la façon d'aborder ce match, justement c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette euh, question. C'est préparer notre victoire, tout simplement. Voilà, euh, faire abstraction de cette pression que vous êtes en train de dire. et, et, se concentrer sur le jeu. Parce que si on ne joue pas, on n'a aucune chance de gagner. Et donc, euh, si on joue, effectivement, on aura la possibilité de pouvoir gagner. Il ne faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce, de ce match-là. Nous savons que euh, tout peut se passer dans ce, dans, dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué, ça peut être un match euh, frustrant. Mais le tout, c'est garder justement cette lucidité-là. Et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré qu'on était capable de marquer. on avait la possibilité de faire la différence à n'importe quand dans, le, dans ce match-là. Donc euh, on parle beaucoup de pression dans, ce, dans cette conférence de presse-là, <laughs> mais je vous le dis, on est plutôt, on est plutôt serein et, et surtout euh, se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le jeu. Et il faut jouer. Mahmoud Gueye. Euh, vous avez tout à l'heure évoqué euh, les bonnes entrées en jeu de, des jeunes pousses de l'équipe nationale. Est-ce que cela suffit, selon vous, de les voir euh, débuter pour le match de demain C'est possible. Vous verrez la composition de l'équipe demain. Euh, bonjour, coach. Bon, peut-être une dernière question. C'est par rapport à l'adversaire qui aura besoin d'un point, d'un match nul pour se qualifier. Donc, euh, est-ce que vous imaginez à faire face à une équipe qui va vous imposer un bloc, qui va refuser des jeux Comment allez-vous procéder On est préparé à tous les, tous les scénarios, mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très, très, très physique. Le défi physique, effectivement, sera, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives, en réalité, beaucoup d'occasions. Beaucoup Donc, euh, je pense que euh, les deux phases euh, très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits euh, où il faut qu'on soit présent, ça sera quand on va défendre dans une équipe qui est capable de marquer du but, et être euh, très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, euh, pour moi, tous les scénarios sont, envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, euh, c'est à nous le match et essayer de marquer ce but-là qu'on qu désire tant. Uh, last question, please. Coach, euh, coach pouvez-vous nous faire le point de l'infirmerie, s'il vous plaît Merci. Le L'infirmerie. Ça va, on a, on a, on a remarqué le, le retour de, de Balotouré. Donc euh, l'équipe, euh, tout le groupe est là, à part Chérou. Chérou qui nous qui ne sera pas là parce que bon, il est blessé et ça va être juste pour ce, pour ce match-là. Sinon, l'ensemble des Lions sont, sont hackés. je dispose de l'ensemble de mon groupe. Thank you. I remind you for, for official uh, et pour euh, l'entraînement officiel euh, de la sélection sénégalaise, il aura lieu au site à 16h. Les médias vont pouvoir assister pendant les premières minutes. Merci beaucoup de votre assistance, de votre attention.